ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokk jullit yi ñu ngi leen nuyu ci seen tur ak ci seen sant ah, di fas yéene rek tàmbali ab liggéey ci xamale lenn rek ci daare kokki daare kokki di daara ju mag nekk fële ci kokki ñu koy wax institut islamique de Cheikh Ahmad Sakhir Lo fas yéene ci ànd ak nag euh, oustaz Moustapha Wayel bi nga xam ne ni moo jiite association bi nga xam ne ñoo génne ci daare kokki fas yéene jàppale sëñ bi ci liggéey bi moo leen jiite nekk ci nekk ci kaw bopp ba ak ku ñuy wax euh, docteur Ousmane Jim Dramé chercheur à l'IFAN mbokk jullit ñi ñu euh, comme ni ko ni ñu ko waxee rek euh, su ndaje mi bokk na ci li ko waral mooy préparer euh, organiser ndaje bi nga xam dañ koy defal dañ ko baaxoo di ko def chaque at ca kokki ren muy mu tombeek le 13 août 2017 ñu war ko dajale ca kokki di fa di dajale ay ndimbal di ko yóbbu ñu jàppale xale yi mu leen dundal ba déwén ba ba beneen beneen at ñëwati. kon loolu mooy sunu jubluwaayu daje fii ñu fas yéene rek euh, waxtaan ci euh, ñu te commencé suñu waxtaan di dalal oustaz Moustapha Wayal bi nga xam ne ni moo jiitee association bi yëpp euh, di secrétaire général bi mu ñu jox ko rek mu nuyoo dañ laajaale ko rek xam ku nekk xam ne ni kokki dafa sosu ci ay ci ci ndigal muy ndigal ko xam dafa bàyyi koo jóge ci Cheikh Ahmed mbay mu jox ko am saxir mu ñëw kokki sos fa daara ja mu waxaale ñu daara ja nu mu sosoo historique sos bi yëg yooyu aoudubillahi min asheytan rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran julli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh euh, jërëjëf euh, Cheikh Abdoul euh, ci laaj bi nga laaj ci kokki nga xam ne moom la ñu waajal ndaje mu réy bu mu nga wax di seet nan nañu def ba yëgal jullit ñëpp luy kokki xamal leen ko ndax ñu mën a jàpp ci liggéey ba kokki nag daara la joo xam ne sax Ahmad Sakhir Lo moo ko sos ci turu ci ndigalal sëriñam maanaam euh, euh, di koo xam ne moom lañ ko tuddee woon maam muy maam Cheikh maam maam Cheikh Mbay ñu koy gën a xam ci Ahmadul Kabir wala Ahmadul Sakhir di bàyyi alaaj jiiri mbay ak sëriñ Sam Mbay nee na bisub gàmm daraan def gàmm gu rëy di ci wooy woote jullit ñi waaye nee na bi ci gàmm la ko woo ne ko yow kaay nga dem kokki sa liggéey fa la nekk boo demee nga toog fa ku fekk nga jàngal ko alxuraan ngir yàlla nee na mu daal di jànq bàyyi fa gàmm gaag waajaay waag reer ñu waajal ak yëpp ci yooyu jamono nga xam ne bernde ju mag a mag la woon boo demee nga dem ci sëriñ kokki ñu dara la tuggul ci biir dëkk ba ñëw ubbi ji toog fa weer delluwaat wax ko mu wax laaj ko nu mu nekkee ak nekkin waag yëpp mu leeral ko lépp ba noppi mun ne ko waaw noonu laa ko gise woon toog fa ku la fa fekk nga jàngal ko ngir yàlla. ba mu dem benn bi la àndaloon di jërbaatam di wax Ibrahima gi ñu ne bay mokkal la ko suñu borom moom. Euh, bokk na ci yi euh, itam nee nañ euh, Serigne Samba daan nettali ne ba mu demee ba toog da ko faa yebal moom ak alaaj jiire neen bu ngeen demee ngeen toog fa. bu leen jàngalee toog leen bu leen jàngalu toog leen loolu nag xëy na aw junj la waaye suñu amat saxir loolu ndigal loola nga xam ne ku la fa fekk nga jàngal ko alxuraan ngir yàlla mm-hmm. moom daf koo déggoon déggu yaatoo yaatu moo tax daara ja ba mu fa toogee njàngale boobu mënoon jàngale ngir yàlla amu ci woon xejj ak seen mbokkam mi sës ci moom mbokk deretam mbokkam mi nga xam ne dañoo bokk gox Euh, ak ki nga xam ne xamut fu mu bokk euh, ñoom lay war woon ki am doomam ak doomi ki ñàkk xàmmewu leen woon kii ab sëriñ bu siiw bu am daraja ak euh, ki nga xam ne kii peut-être baa baayam ci li ñuy tuddee ñun ci baado la nit koo xam ne mm. kii yàlla seet jox ko ci cër yi ñuy xool ci àddina benn mm. bu ñëwee ci kokki ñoom lay wala woon bokk taal bi yëpp mu uuf leen ba kenn ku nekk yëg ne daara ji sa daara la sëñ bi sëñ bi sëb sëriñ la mm-hmm. te liggéey bi kenn uh, gënu la cee yey uh, sëriñ bi itam toppatoowul kenn sàgge kenn mm-hmm. loolu nag dafa may uh, daaray kokki mm-hmm. mu teel a amu tur liggéey ba teel a feeñ nit ñëpp ci gox yëpp ci waaso yëpp ci këru diine yëpp ci doomu soxna yi fu ñu mën a jógee ak fu doomu aadama mën a jóge rek ñu teel a ñëw kokki Mm-hmm. ndax liggéey bu yaatu booba euh, loolu nag euh, moo tax daara ji di màgg ba àgg ci dimension bi nga xam ne xëy ci kanam tuuti dinañ ci ñëw gën koo leer ci la toll waaye daal ku la fa fekk mm-hmm. nga jàngal ko ngir yàlla ngir yàlla rek maanaam loolu moom mm, ndigal loo xam ne mm-hmm. si Ahmed Sakhir Lo bañ ko ko joxee ca la nekk ba déggoon na ko bu baax a baax a ca la nekk ba ba nu mu fi jógee bu ndaw rek ci thésis bi si Ahmed Sakhir Lo njëkkoon naa euh, fondé daara 1934 34 ci ndàll la boo génnee kokki tuuti rek fa la amoon daara hmm. waaye daara jooju dafa jékki ba si àgg mu bàyyi ko fi jàngiwaat xam-xam xëy na bu ñëwee ci ci hmm. kan mooy dana gën a leer daal dana gën a incha waaye léegi daara ji di kokki moom 1939 hmm. ah. la ko sanc nee na bi mu fa tegee tuuti rek ah. ci la guerre bi 39 euh, 45 ci la ci la déclenché ah. kon daal euh, bu ñu tënkee ci li nga wax mooy euh, Cheikh Ahmed Sakhir jóge na Louga ci ndigal ndigalu sëriñam di euh, Cheikh sax Sakhir Mbaye ci 1939 ci 1939 ci la ñëw kokki sos daara jooju euh, sosee ko nag ci jàngale euh, ngir yàlla nee neenga bi mu ko yebee da ko ne boo demee da nga fa toog ku ñëw nga jàngal ko ngir yàlla daar ke boole yebal fa ñaari doomam ne leen bu ngeen demee demel mu jàngal leen même bu leen jàngal da ngeen fa toog kon kooku euh, ki ko fa yebal am na lu mu gis ci moom ci góor googu waaw oustaz foofu laa ñëwee ci oustaz ci euh, docteur Jim Dramé docteur ñu ngi lay dalal di tatagal di rek nga nuyuwaale te lay laajaale question góor nga xam ne nii moom wax na ne dañ ko faa yebal. pour mu jàngal alquran kase ngir yàlla. yëpp daal di ku nekk xam na ne suñu Ahmed Sakhir Mbaye euh, dimension àggoon ci suñu borom subhanahu wa taala ak gis-gis mu bool koog ñaari doomam. na ko bu ngeen demee na leen jàngal bu leen jàngal lu ngeen fa toog kon góor googu ak na mu réussir ni mu réussir ci yar doom aadama defar nit ba daara ji toll nii góor googu nag xaa war moom lañ bëgg nga waxal ñu mooy kan ak ak ak jikkoom bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain jërëjëf oustaz abdoul xaadir mm-hmm. di nuyu nuyu ki nga xam ne moo jiite mbooloo muy oustaz Moussa Wayal xam naa ne tontu bi dañ ciy jéem rek ndax sëñ Ahmadou Sakhir Lo wax ci moom war na mën a jël temps bu gudd. Mm-hmm. xanaa ñu jéem a tënk rek ndax wax nañ ne moom yàlla def na mu bokk ci benn famille boo xam ne dafa judd ci diine. Mm-hmm. judd ci alxuraan. Mm-hmm. Euh, wax nañ ne mu ngi juddu am mu ngi gane àdduna en 1903. ci dëkk bu ñuy wax Ngeer Malal. Ngeer Malal soriwul Louga. ci wetu Louga la nekk. Eh, cosaanam di ñoom rek ndax ku nekk da dégg sëriñ Maxtaar Naar Lo mag ma bu mu ganee àdduna en 1903 eh, yàlla dafa def mu jàng alxuraan ba man ko man bu wér waaye yemu ci ndax booba temps boo ci Sénégal ñu bëri am na ñoo xam ne bu ñu jàngaat alxuraan bu mokkal ko dañ ci nekk di bind di beq yi sonn ci waaye xam-xam bi ñaare daaw ñu ci xóot noonu lay mm-hmm. da daan jël seen temps lu bëree bëree bëri moom nag yàlla da ko may teel a may gis-gis mu nekk visionnaire mm-hmm. moo taxoon bi mu jàngee alxuraan ba mokkal ko dafa dugg ci daara yi mm-hmm. pour dem jàngi xam-xam waaye bi mu jàngee astaf ci xam-xam nag dafa dafa dafa ñibbisi ndax dem na dëkk bu ñuy wax nguy jàng fa mhm. dem na dëkk bu ñuy wax kaneen euh, njopp mhm. euh, jàng fa dem ci yeneen dëkk waaye nag ni ko woyal waxee weer 1930 34 mhm. dafa dem dëkk bu ñuy wax ndàlla ca gannaaw kokki sanc fa daara commencé di fa jàngale jàngale ba ci kanam mu xam ne moom li mu soxla ci xam-xam amagu ko mu bàyyi fa daara ja par rapport ak li mu bëgg a liggéeyee moo tax mu xëy xëy li ñuy wax gàddaay. waaw fa daara ja. dem jàngiwaat. dem jàngiwaat. lu jafe. dem jàngiwaat. pour yokk xam-xamam. Hmm. ci la dem ba yegg Saloum. Hmm. te xam ngeen diggante bu Njaambur ak Saloum booba temps. sori na wala waaye amul. dëkk bu ñuy wax Njaayeen kàdd Tafsir Ahmad sekk Ndiaye. Hmm. nekkoon fa yoroon daara ju mag a mag. ak ci taalibe yi ku ñuy wax sëñ Ahmad Muxtaar Si. dem naa fa bu yàggul ñu wan ma ne ma fii la daara ji nekkoon. jaar na fa Ndiayène Kadd jànge fa jàng na eh, ndar surtout ndar ci Serigne Ibrahim Diop. Mm-hmm. Serigne Ibrahim Diop moom yàlla ku mayoon bokk na ci ñim formé ci Sénégal mënoo tudd mukk ay jàngalekat ay jàngkat te doo tudd ñoo xam ne sëñ Ibrahim Diop moo leen jàngal. Mm-hmm. sëñ Abdou Aziz Dabakh. Mm-hmm. sëñ Abdou Khadir Mbacké. sëñ Ahmadou Sakhir Lo. Abibou Sall ak ñeneen ñoo xam ne. ah xanaa xanaa sax xanaa sax li ñuy wax xanaa sax li ñuy wax relation bi nga xam ne amoon na ko ak ñu baax ñi Sénégal waa Ceneba ak waa euh, euh, Tiwaawan mm. xaa foofu la juddoo yi ci bëri ci fëla fëla fëla fëla juddoo mm. yi juddoo ca Ngay mm. ca ca ca Nguy waa waa waa Ceneba yi kon moom bi mu defee loolu tamit dem na Mbuur mm-hmm. sëriñ Amadou Wade mm-hmm. sëriñ Amadou Wade Euh, doomam dem naa fa temps yi passé dafa moom entretien mhm. mu ne ma waaw yéen de waa kokki war nañ maa jox àllarba ngir ñaari yëf mhm. ngir sama papa sëñ Ahmadou Wade mhm. jàngal sëñ Ahmadou Sakhirlo sama maam sëñ Ibrahima Diop mi nga xam ne moo jur sama yaay jàngal sëñ Ibrahima sëñ sëñ Ahmadou Sakhirlo inchallah euh, dem naa fa dafa moom entretien bu mag bu yàgg temps yi passé inchallah kon boo gisee dafa waraat jàngaat ba nga xam ne nag fu mu nekk nii wóolu na xam-xamam mu door a ñibbi mu doog ñu kokki mu door a ñibbi bi mu ñibbee nag ñibbi ca nga xam ne mooy sëriñ ndaaram mooy turandooram mooy sëriñam mm-hmm. mooy sëñ Amath Saxe Mbaye am na ñu ne mu ngi faatu moom am sëñ Amath Saxe Mbaye en 1946 sëñ Amadou sax Mbaye moom nag mm-hmm. moo ko ne kaay nga dem kokki mm-hmm. kaay nga dem kokki nga dem sa liggéey mm-hmm. te ni ko woyal waxee sànq bisu gàmm ñëpp di xaar gàmmu gi moom mu bàyyi fa gàmmu gi topp ndigal moo tax léegi-léeg da ngay gis liggéey euh, léegi-léeg lu barkeel day am cosaan <coughs> day am cosaan léegi-léeg daaray kokki man bokk naa ci ñi gëm ni ndax dañ ko teg ci ndigal ndigal daan wax ne dañ ma jox ndigal dama am sëñ mat sëriñ mu jox ma ndigal lu ma ndigal ma nekk ci. loolu moo tax en 1939. Mhm. ba muy dem sanc daara ji fokk ñu waree ne booba temps nag am na ay jafe-jafe yu amoon. Mhm. man dégg na sëñ bi benn bis mu ne. Mhm. bi ma sancee daara ji ñetti weer képp la ci teg deuxième guerre mondiale commencé. moo ko wax ci laa ma ma dégg ko. beneen ba dégg na année yooyu dans les années trente trente neuf quarante. dafa am bekkoor bu amoon. bekkoor métti métti kon zuruuf condition yu difficile ci la daara ji sosoo ci la daara ji sosoo mhm. waaye moom xam-xam na ne am na ndigal lu mat ndigal mhm. moo tax mu nekk ca mosul dellu gannaaw mosul reculer mosul yoxat nekk ci ba ndimbalu yàlla ñëw fekk ko fa ba daara ji évoluer ni mu évoluer nii nga xam ne tey kenn mën a tudd daaray alquran te doo tudd kokki boo xam ne mu ngi jàngal njàngale mu wër mhm. ci biir Sénégal ak ci réew yii wër Sénégal te doo ci boole daaray gox. daaray gox waaw loolu moom loolu moom lu lu leer la lu wóor la moom. Mm. Euh, suñ tëkkee li nga wax rek euh, docteur mooy euh, da ngaa da ngaa da ngaa feeñal point bu am solo. Mm. c'est-à-dire que jamono ji nga xam ne nii sëñ Ahmad Sakhir Lo ci la taxawal kokki mm. jamono ay daar amoon na. juraan daan jàngal alxuraan. Mm-hmm. waaye li li feeñal liggéeyam dëgg-dëgg mooy côté xam-xam bi. Mm-hmm. parce que nekkul alxuraan alxuraan alxuraan kase mm-hmm. duñ ne alxuraan kase sax mm-hmm. waaye dafa xam ne euh, sosoon na daara mm-hmm. waaye la ma soxla woon ci xam-xam matul mu uti utiwaat ko gëstuwaat xam-xam ba àgg ci xam-xam kon daal daare ko bu ñu ko waxee mooy du daara joo xam ne ne dafa sukkandiku ci alxuraan ak xam-xam ñaari loolu li ma gis euh, oustaz Abel Khatir moo di ah. dafa am lu mu doon moytandiku ay taalibeem am na ay jamono. Ah. da ngay jàng alxuraan bu mën ko ci daara Moussa Wayal ci ci ci misaal. Ah. bàyyee ko fa dem beneen daara bu sori pour jàngi xam-xam. léegi mu boole bàyyee ko fa dem beneen daara bu sori jàng beneen matière. Mm-hmm. léegi nag moom bu fexee ba am matière yu yëpp jàng ko mën ko jàngale. Ah. léegi boo ñëwee daaraam. di nga mën jàng alxuraan mokkal ko. waaye doo génn du soxla. ngeen jël fan loolu daf ñu yóbbu sax ñu ñu ñu ñu laajaat. waaw waaw xam nga waaw loolu daf ñu yóbbu sax ñu ñu ñu ñu laajaat beneen question oustaz euh, Moussa Wayal comme docteur docteur li mu wax nga xam ne ni euh, lu leer la ne suñu Ahmed Sakhir euh, dafa jàng alxuraan ba mokkal ko man ko ci ndigalu sëriñam mu sos daara dem ndaal la waaye xam na ni aliwaam am na lu ci des ak li mu bëgg ci ci ci xam-xam xam comme euh, docteur ni mu ko waxee nga xam ne ni bëggul sos daara joo xam ne nii dafay jàngal nit mu mokkal alxuraan ba pare mu jóge fi dem jàngiwaat feneen xam-xam mu boole lépp ci daara nga xam nit ki dafay jàng alxuraan ba pare jàng xam-xam ba mel ni mu war a mel bu fa jógee rek day daal di sotti dootul soxla beneen liggéey loolu rek daf ñëw ñu laaj la benn question ku nekk xam ne ni kooku ku ko xool xam ne am na avancement. njàng ba fa sëñ am saxiir loo sosoon am na fu mu commencé woon waaye nag fii ñu toll nii am na fu mu yem. loolu lañ bëgg nga ñëwal ñu ci fa mu commencé woon ba fi mu toll fi fi mu toll nii moo xam nag ci wàllu euh, njàngin mi. moo xam ci wàllu dëkk dëkk dëkkin wi moo xam ci wàllu nekkin wi. jërëjëf Cheikh Abdou Khadir euh, daaray Koki comme ni ko ni ñu ko jinjee woon ci li ci waxtaan wi. kon sëñ bi ñu koy sos benn dong la amoon. Euh, waaye njàng ma dem na ba gis ne que tey ñoo ngi ci euh, trois mille neuf cent quarante maanaam ñetti junni ak juróom-ñeent rek. ak ak ñeent fukk ci ay élèves ci ay ndong yu goro ak jigéen mm-hmm. loolu nag te ña fa jànge woon itam ba bés ni ki tey ña nga fay dellu euh, fexe ba seen présence seen nekk ci daara ji di continuer mm-hmm. seen njaboot itam di fa continuer loolu nag ma ne kon am na lu ñu fa gis mm-hmm. euh, Cheikh Omar Sakhir Lo daan wax ne boo xoolee ni mu doon ni doon yare dafa mel ne euh, vision bi ci ñaari ñaari mbir la tege bu nit masaa ñëw andi doomam fekk mu njëkk a jàng al français nanga mu ngi demee noonu bu ko naan njàngam français mu bon mi sëñ bi dama amul nanga mu ne deen njàng mu bon amul xam nga lu bon mhm. mooy li war a jiitu jiituwut mhm. kon moom li mu gisoon mooy doomu jullit mhm. li ñu war a njëkk a def ci moom mooy alxuraan bu ñu defee alxuraan ji moom ba noppi nag am na lu mu ci daan teg nee na ku mokkal alxuraan ba nopp te jàngoo xam-xam dangaa mel na ku ñeenu gaalum ngalam ngalam la daan wax mooy maanaam waxande la am waxande la wax sax du wax gaal waxande boo xam ne ngalam lañ ca def ba mu fees mm-hmm. ñu tëj ko jël caabi jee yan la ko nag ngay dem mm-hmm. balaa ngaa mën a jëfandikoo ngalam bi ci nekk dangaa tijji gaal gi mm-hmm. te nee li koy tijji mooy xam-xam kon nga gis ne kon moom gisoon na ne alxuraan moom la ñu war a njëkk a jàng bu nuñ ko jàngee ba mu dugg ci xol bi nag léegi nag borom ñu ubbi ko nag ci façon xam-xam wu mu mën a am moo tax itam ku ku yàlla baaxee la maanaam xale yi bu ñu mësaa jàng alxuraan Euh, ba noppi ca daara ja ca yooyu jamono. lañ doon jàng xam-xam bi ñu tëral. Mhm. waaye jàng école arabe li ñuy jàngale. Mhm. waaye di jàng français itam. preuve bi mooy ne actuellement. ay ñoom Serigne Modou Anta ñoom ak Modou ko ca rahmatullah alayhi sa amal la ñoo ñoom fi doon ay fonction yoo xam ne dem nañu retraite bu yàgg yàgg yàgg mhm. te ci daara ji seen formation ci wàllu njàngum tëral waaye ci njàngum arab waaye itam ci njàngum français mi nga xam ne ci lañ doon sukkandikoo ba ñenn ñi dem département d'arabe Euh, kon loolu gisin wu wu yaatu woon ci moom. Hmm. léegi nag gisin wu itam nag moom moo gën a développé ci biir kokki hmm. moo tax xale yi bu ñu mokkalee léegi dañ leen defal enseignement primaire hmm. franco arabe. ci ñeenti at. ndax ko xas mokkal alxuraan xam nga sam njàng primaire mën naa gën a gaaw. léegi moyen bi au lieu que ñu koy def ñeenti at mooy itam ñetti at lañ koy def. moom nañ koy renforcer. bac euh, secondaire bi moom ñettee at lay nekk. bu hmm. ko defee xale yi am bac. Hmm. waaye ci biir njàng moom itam njàngum cosaan mi nga xam ne moom la Sénégal xamoon démb ak bërki démb. Hmm. mooy ñu toog lal sëriñ bi toog di jàngale mm-hmm. téere yi mm-hmm. di ko firi ci làkk euh, yi nga xam ne moom lañ xam bu dee ci kokki ñu jël làngu wolof bi mm-hmm. ci la ñuy jàngale téere yooyu itam di ay axdar yooyu ak asma yi ba ngay dem euh, ci risaala ak euh, xalil ba ba ngay dem ci maqaamaat luxa bi itam ba ngay dem chonra yeeg maqaamaat yeeg ak balaaxa baag yeme muy àndal yooyu itam ba wécc ni tey am na koo xam ne kii moom moom lay fare nga xam ne bu ñu xare yi jàngee suba ba noppi Mm-hmm. muy toog di jàngale njàngalam cosaan moomu. Mm-hmm. bu ñu jëlee timis diggante timis ak gay mu toog di jàngale njàngam cosaan moomu. Mm-hmm. muy seen Oustaz Xaali Ñang yàlla na ko yàlla gën a dëgëral. waaye mu fu mu toll nii moo fa nekk ci jamono yi moo fa yore loola. sëñ Maxtaar ci ay jamono moo ko daan jàngale ñun moo ñu ko daan jàngal. daan jàngal risaala ak yooyu moo ñu ko daan jàngal. ci tëral. waaye eh, bi ñu demee ba a ji gën a gën a màgg itam dañoo wut koo xam ne kii moom moo fare moo fare njàng moom mm-hmm. nga gis na kon léegi xale bu xasee mokkal mu mm-hmm. ngi ci enseignement franco arabe bi mm-hmm. di jàng arabe nañ ko war a jànge di jàng français bu baax a baax a baax yàlla dinañ ci defal ay ndam waaye aussi itam njàng mi nga xam ne moom lañ xamoon démb itam eh, ñu ñu góor góorgóorlu bu baax a baax kon ci wàllu njàng mi noonu la noonu la demee eh, fi mu toll nii école boo xam ne boo demee da nga fekk plus euh, de six cent élèves yoo xam ne mokkal nañ alxuraan ba noppi di jàng xam-xam xam nga loolu yombut. yombut sa jóge fu nekk nag euh, léegi nag njàng mi mi ngi mi ngi mi ngi yem ci niveau bac. niveau euh, xam naa ñoo ngi xalaat bu ñu yàlla dimbalee ay defaree ay ndimbal. ni ñuy ba ubbi enseignement supérieur euh, ba nga xam ne xale yi bu ñu amee bag ba noppi dinañ mën a continuer. surtout ñu xam ne léegi daanaka ñi am bac ñu tuuti ñoo ci am bourse dem ci réewu arab yi. wala ñeneen ñi euh, état bi orienté leen ñeneen ñi ci des duñu am fuñ jëm dañuy toog rek parce que amuñ côté yu ñu jàngee loolu itam li xalaat la fi mu nii. kon daal bu ñu kii daal dañu gis ni kon euh, kokki mu ngi ci njàng mi mu ci mën nañ koo séddale ci cinq étapes. mu ngi ci cinq catégories. njàngum alxuraan bi. Mm-hmm. bi nga xam ne ne xale bi da koy def bu mokk alxuraan. Mm-hmm. ak njàng bu paree. Mm-hmm. dugg cycle primaire bi. su paree dugg cycle moyenne bi. après cycle secondaire bi. lépp am na kokki ak njàngum cosaan bi. Hmm. cosaan bi nga xam ne lal basang lal basang bi nga xam ne moo moo sosoon daara ja ma nga fa ba léegi. Hmm. maanaam ñoom daal dem nañ ci modernité hmm. waaye ñi nga sàmm lal sosoon daara ja léegi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy sàmm. waaw rek docteur xam nga. ay euh, euh, évolution boobu nga xam ne am na ko euh, suñ suñ Amadou Sakhir ñëw tëral daara ji ci alxuraan. ñu jàng alxuraan di ko mokkal mokkal mu rafet mm. xale bi mokkal ñu dugal ko mu jàng xam-xam ba àgg ci cycle cycle yooyu àgg ba àgg bac mm. xam nga ne loolu euh, développement boobu am na lu mu àndal mm-hmm. am na lu dana am lu mu àndal ci ay moyen moyens mm-hmm. euh, dana waral ñu xale boobu ñu tabaxal ko école xanaa fu mu mm-hmm. war a mën a jàngee ku wax développement boo waxee euh, lu tolloog ci ñeenti junni lu xaw tollook ñeenti junni élèves da wax fu ñuy dëkkee da nga wax lu ñuy lekk. da wax lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy naan. Mm-hmm. yooyu yëpp dana dana posé ay ay ay problème mm-hmm. xanaa yooyu léegi euh, daara ji moom fu mu ci toll. waaw fu mu ci toll moo dina ne. Ah. Euh, c'est vrai mm-hmm. évolution am na. waaw waaw am na bu baax a baax. ndax tatawur boo xoolee ci wàllu ci wàllu euh, marafix yi mhm. infrastructure yi ah. wala ci nombre bi ci li mu tale mhm. taalibe yi ah. am na bu ci lu wér a wér façon mhm. bu nekk mën nga ko joxe ay preuve ci wàllu ndongo yi xam nga wax ne sànq ne bu ñu commencé benn taalibe la commencé ah. en 1939 en 1900 69. Mhm. maa ngi li ci teesu rawaan bay mu def entretien ak sëriñ bi. Mhm. sëñ bi ne ko fu mu nekk nii xale yi ñu ngi ci ñaari téeméer. nombre ta taalibe yi. en 1969 en 1969. waaw ñaar téeméer ñaar téeméer taalibe boo dee ba 1980. Mhm. booba temps ñu ngi ci junne ak ñetti téeméer 1300. 1300 léegi 2017. récemment mu ji am ñu naa ñu ngi ci 3940 presque ñeent junne yu manqué juróom-benn fukk. loolu nag. Mm-hmm. li koy waral moo di ne école ba mm-hmm. offre éducative bi muy joxe mm-hmm. bu ñu proposé dafa nekk offre éducative boo xam ne am na qualité ndax nit ñi ñaare seen doom wala seen jarbaat wala jok bokk ci ñoom bu leen dugal fenn day fekk ñu am fa yaakaar ñu am fa yaakaar loolu moo tax loolu moo tax kokki eh, ñun ay Saalum Saalum par exemple ñi bay ko Saalum ñi bay ko Fuuta ñi bay ko dañ koo dégg kenn demul ba Saloum. Hmm. def fa politique naan ñëw leen dem kokki hmm. mais kokki moo jaay boppam ci liggéey bu mu liggéey indi ay doomu taal doomu saalum saalum hmm. jànge kokki ñëw dem saalum booba temps da gis ay daara yoo xam ne nit dana fa am lu mat fukki at ak juróom wala du ko jege du ma ko alxuraan kenn bàyyi ko saalum wala Fuuta dem kokki ab diir ñëwaat mokkal <laughs> alxuraan mokkal bu rafet mokkal bu wóor ñu ne ah kii kat fa mu demoon <laughs> ah. dara nga fa ñu daal cay topp donc kokki politique kokki noonu la mm. mooy xam nga sëñ daan wax ne dégg naa ma woyal di ko wax ne sëñ Amadu Saxiir daan wax ne daara ne ko ne daara liggéey du ko yàq du ko tas mm-hmm. xiif du ko yàq maanaam xiif du ko tas mar du ko yàq waaw mar du ko tas ñàkk jàng daal moo koy tas kon moom mm-hmm. loolu moo taxoon man dafa am benn principe boo xam ne suñu bi am lu daan na ko wax mm-hmm. euh, man bind naa ko danaa ko faral di wax naan na njàng mi yàq liggéey bi mm-hmm. waaye bu liggéey bi yàq njàng bi mm-hmm. si nga loolu ba mu koy wax ah. daaru yu bëri boo fa demee effectivement boobu temps liggéey bi dana yàq njàng kon boo xoolee évolution bi am mm-hmm. li ko waral dara la moo dañ koo liggéey dañ ko liggéey enseignement de qualité bi ñu daan joxee ànd fexe di sonn ci ci taalibe bi loolu moo tax boo demee nag di jàngale te yàlla tax te doo fayeeku te boo doon ko tey du tere nit ñi am jëm ja fay jàngale. Mm-hmm. waaye mu ngi doon xalaat ne man su ma fayeekoo ñi nga xam ne ñoom mënuñoo fay tey bu fal seen doom fi ñu jàngee daan na ko wax. Mm-hmm. boole teg la ko sëñ boo ko nekk dama jàngal te yàlla tax. Mm-hmm. kon loolu ci la ñuy ñëwee. wane ni daaray kokki bokk na ci daara yoo xam ne ci Sénégal mhm. dañoo méritoon ndimbal macha allah dañoo méritoon ndimbal mhm. moo di ne képp ko xam ne am nga sa as tuut génne nga asaka wala nga am loo mën a def ci yoonu yàlla mhm. boo koy joxe mën nga seet fu mu demee ni kokki wala fu mel ni kokki te xam ne mérite la xanaa kon loolu sax daf ñuy dugal ci beneen point xam nga ko dajale lu tollook ñetti junni waaw ñetti junni ak euh, trois mille euh, trois mille neuf cent quarante téeméer ak ñeent fukk waaw trois mille neuf cent quarante ci ci ay élèves dana comme li ñu waxoon léegi mm-hmm. dana dana laaj ñooñu ñu dundal leen. Mhm. ñu dund dana laaj ñu naan. Mhm. dana laaj ñu tëdd. ñu faju euh, ñu faju. Mhm. loolu euh, xam nga ne néew néew nañ ci doole. loolu toll noonu état ko waroon yor. kon dana laaj ay ndimbal yu bëree bëri. xanaa loolu rek moo moo moo moo indi. bala may jox sëñ Moustapha Loulé moo di ne wane ne. ndimbali dinañ ñëw niñ ko euh, ni ko daara Koki mérité wu ak feneen yu mel ni Koki. waaye tamit damay bëgg a wane ne. ki Sénégal gii. naka jekk dafa am ay nit ñu xam ne ay ah. nitu yàlla ah. dañ ne mës a jóg di def lu baax ci daara yi dimbale daal yi mhm. dimbale jàngu yi mhm. daan ko def secrètement yi te da daan yàlla kese tax daawuñ ci ut sax siiw mhm. di nga jël misaal ko demee ne alaaj ma xarigéey ca Thiès yàlla na yàlla yërëm ko boo xoolee maa ngi liir rek euh, li nga xam ne moom la Ibrahima Diakhaté bind ci yi ne ca jamono jamonoy 73 75. presque cinquante millions ca ca jamono yi mu def ko te yàlla tax pour tabax daaray Koki. xam nga ne kon moo di ne ñu demee ñooñu le am nañ mm-hmm. Sénégal mm-hmm. kon moo tax bu ñu ñëwee ci point bi nga xam ne mooy ndaje meeg mm-hmm. solidarité bi yooyu dana baax ñu xam ne kat kon waaw ñu jiital xam ne kat euh, am na fi place yoo xam ne Sénégal daal ko am as war nga fa mën a def dara te xam ne boo ko defee rek xamal léegi na place waaw waaw euh, xam nga comme li ñu wax rek da dajale euh, lu toll noonu ci lim ci barab dana laaj ndimbal ndimbal loolu sax nga xam ne ni woote ñu ci jàppale bokk na ci ci li ñuy euh, li tax ñu sos li ñuy tuddee benn association boo xam ne nii ñëpp ñoo xam ne dañoo jaaroon ci daara ja daara ji jàngal leen def ci ñoom li mu def ci ñoom ba ñu doon li ñu doon ñu ëlbatiku li ñu amas néew di ci comp di ci yóbbu ci daara ja képp ku ñu xam ñu ñuy dem ci yow di jël ci la nga amas néew di ci comp ñu ànd boole ko yóbbu ko xale ya fa nekk di ci mën a ndimbalikoo di di di taxawee seen seen aliwe association boobu noonu euh, waxoon naa leen ko oustaz Moussa Wayel moom mooy moom mooy euh, moo ko jiite moo nekk ci bopp ba moom lañ bëgg wax rek jublu ci lu ñuy wax ndaje ren bi ndaje ren bi ñu ngi ko jàpp ci le 13 août 2000 2017 ñu war ko ñu war koo préparé ndaje moomu naka la juddoo oustaz Moussa Wayel. Euh, jërëjëf Oustaz Abdou Khadir mm-hmm. comme ni ko docteur Jim junjee léegi. Eh, daara jee wane na njàng mi ak fi mu toll. Mhm. Eh, ak ubbeeku gi nga xam ne moom la ubbeeku woon ci jàngal ñëpp. Mhm. Eh, maanaam xam nga bu njëkkoon. Mhm. jàng moom doomi soxna yi ñoo nga xam woon ba léegi sax dafa mel ne vocable boobu am na ñu ko jël ba tey kii doomi soxna dafa war a jàng am na ñoo xam ne ñoo waruñ jàng si ñun sax moom dafa ñëw ne jàng képp kuñ jàngal rek nga nekk doomi soxna. kon ñu yar nit ki rek moo am solo ci moom. Eh, eh, foofu nag kooku dëgg yàlla boo xoolee da gis ne ñetti mbir dama naan am na ñetti sunna yu fa daje. Mm-hmm. yoo xam ne yal na yàlla def eh, ñi ko sosoon ñëpp li yonent bi sallallahu alayhi waxoon ci man sànn sunnatan xasana ku def dundal sunna su rafet ñu roy la ca. Mm-hmm. sun borom lu mu ci dégg ci ay pay yëpp yàlla nañu ko yàlla defal. monsieur am soxla nga xam ne dafa ñëw. Mm-hmm. di jàngale waaye nag jàngale mi mu am lu mu cee lu mu cee lu mu cee dindi. maanaam am ñu jagoo jàng ak ñu jagoo liggéey ñu jagee na mu dindi ko. Mm-hmm. ñëpp yem. Mm-hmm. nga xam ne xale bi yaroo kooki. Mm-hmm. day gis ne sëriñ bi nga xam ne moo yem yor daara ji ak ñiy jàngale. ak doomi sëriñ bi ak doomi ñi jàngale ak ñi xamul seen waa seen waajur fu ñu jógee ñoom ñëpp ñoo yem benn traitement lañ leen di jox. nga xam ne ñëpp ci lu la ñuy yaru. màgg ci ànd ci. loolu wax dëgg yàlla mbir la moo xam ne mu am am solo la. yal na ko yàlla may ay leer. Euh, may ko ngërëm li nga xam ne moom la doon sàkku waaye Baye Atou Khoule rahmatullah alayhi mm-hmm. moom mi nga xam ne itam bu mu fa indee njabootam xool daara ji ak euh, yenn bi ci année soixante-dix yi mm-hmm. mu njëkk xool ba xam ne sëriñ bi yow de lii nga yore euh, lott nga ci jàngal leen dundal leen toppatoo seen lépp dama bëgg nga jox ma ndigal mm-hmm. dama lay ñaan ndigal daal man tam ma am na ma ci jàpp mu ne ko noo ci jàpp mu ne xanaa lu ma am ak ku ma xam ma laaj ko lu mu am. Mm-hmm. ñu bool loolu indi ko jàppale la ko ci liggéey bi. sëriñ ma ah loolu dama ci dama ciy bëgg. dama ci bëgg dama ciy loo am nga ci ndigal. Mm-hmm. ma la tàmbali ca loola. Mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñoom la daan àndal ñoom El Hadj Madawas ko yàlla eh, may yërmande ak leer. nga xam ne moo doon seen trésorier ak eh, mbooloo mu gudd la woon. xëy na mu ne su ko lim fii. waaye ñu commencé ñoom di indi seen i ndimbal. ba noppi di wëri ndimbal xam nga nag wax dëgg yàlla commerçant buy saraxe moom yàgg naa am mm-hmm. waaye commerçant buy saraxe ba noppi di yalwaane ndax yët ku jàng kooku wax dëgg yàlla ñooñu itam ah, beneen euh, daraja nañ fa loo xam ne beneen beneen daraja la yal na yàlla nangul seen jëfee amiin amiin amiin waaye alaaji Maxar Gueye mm-hmm. rahmatullah ala nga xam ne bu ñuy wax daara moderne moom ci Sénégal wax dëgg yàlla mm-hmm. def naa état bu fekkee gëstu woon na ba xool ci modernisation daara moom la ñuy def euh, référence bi. symbole bi nga xam ne. Mm-hmm. moom ci histoire Sénégal. moo fi njëkk moderniser daara ci li ñu xam. Mm-hmm. maanaam ci yooyu jamono année soixante dix yi. Mm-hmm. Euh, jàpp quatre vingt nga ñëw avant quatre vingt avant quatre vingt un fekk na mu pare. nga tabax daara boo xam ne bii moo gën rafet sa kër gi nga dëkke euh, indi ndox indi téléphone. indil ko sëriñ bi. tabax poste de santé. indi groupe euh, courant électricité amagul nga indi groupe électrogène hmm. ci yooyu jamono nga xam ne daara ji dafay daal di jóge ci néegu ñax ñëw ci bâtiment yu moderne yoo xam ne ba fi nekk tey ah modernité école mënu ku ko weesu hmm. kooku wax dëgg yàlla moom itam def na ci liggéeyu lislaam liggéey bu rëy rëy ah, ñi jànge kokki nag hmm. doon yaroo ci keppaaru ku mag ñu baax ñooñu gis nañ amat saxir la waaye ak mag ñu baax ñi nga xam ne ñoom laa tudd. Mhm. bàyyi alaaji aatu ak ñi ànd ak moom alaaji ma xërëgee ak ñi ànd ak ñoom. Mhm. ci nañ doon liggéey nga xam ne ci kappaar googu lañ yaroo nag. Mhm. di xool ñii ni leen di yore. di leen indil ceeb di leen jëndal diw. ñu boole ko ñebe ji ñu bay ak li ñu am ci dugub di ko dundee. bi ñu ne ba quatre-vingt nag ñu ne ah ñii kat sunu bàyyi li ñu yëkkati woon. modèle boobu ñun nag ñoo ko war a taxawoon ñun ñi nga xam ne ñoom la daara ji. produire daal di produire moom daal di jur. daal di ñu suñu mokk euh, randaloon. Mm-hmm. ñu fondé association bi ñu wax ko suñu am saxirloo. mais bañ ko ko waxee dafa jóg sant yàlla santaat yàlla santaat boromam. ne mm-hmm. sant mu ngi sant boromam bi nga xam ne daara ji am na ay doom yu jóg nag pour taxawu ko. pour taxawu ko waaw xam nga nag ah, loolu itam lu rëy la. Mm-hmm. Euh, taxaw boobu nag mooy rek la mag ñu nekkoon ñu. ñu di ko def. Mm-hmm. mbay sa tànk. Ah. loo am nga joxe. Mm-hmm. koo xam itam man faa àggale mission bi leeral ko la daara ji liggéey mu joxe. Mm-hmm. Euh, lu mu amoon di boole ñu boole loolu lépp yóbbu ko ci daara ji. loolu nag jur na. alaaji am euh, alaaji ma xëy la mu fa tabaxoon ci ay bâtiment wax dëgg yàlla léegi ay bâtiment yu bëree bëree bëri bëri. Euh, wër nañ ko. jumaa ju mag a mag wër na ko. waaye itam poste de santé bu mag a mag a mag bale ak ren sax maternité maternité bi pare na mhm. ba état bi am ku fa ku ñu fa affecté actuellement pour mu nekkaale fa xëy na ci contractuel la waaye mhm. ma nga fa ci fi mu toll nii nga xam ne daara jaag li ko wër ak njabootu daara jeeg ña fay jàngale parce que daara ji rek famille la mhm. jàngalekat yeeg ñi jàngale arabe ñuy jàngale français ñi jàngale alxuraan ak ñiy liggéey ñu ñëpp ay famille lañ waaye itam ñi dëkk ak daara ji itam seen njaboot ñu mën a jëfandikoo ci maternité boobu waaye euh, foofu itam nag euh, il faut ñu juñ ci itam effort gouvernement bi hmm. wax dëgg yàlla hmm. euh, ren ji benn pavillon boo xam ne bu góor boo xam ne coûté na mook benn pavillon jigéen hmm. boo xam ne ñoom ñaar coûté nañ cent trente millions léegi gouvernement bi def na ko fa. te ministre de l' éducation euh, jiite woo ñu sasoon ko mu exécuté liggéey bi. Mm-hmm. Euh, ba inauguré nañ ko ci gannaaw. macha euh, allah bay Mbaye Thiam jiite woon ko. macha allah itam day wane na ñoom itam wax dëgg yàlla. ñu ngi taxaw ci liggéey bi waaw waaw waaw mi ngi mi ngi mi ngi taxaw mi ngi taxaw. macha allah waaw léegi itam nit nitu état yi itam il faut ñu wax seen rôle. Mm-hmm. pour ci ñeneen ñi. fekk ci leen ci mm-hmm. Alioune Sall itam ñëw na fa fekk liggéey boobu mu ne a ah, waa lii ne ñu leeral ko mu ne kon man tam mbaar bi ñuy jànge a jiitu ñëpp mu ne man tam mbaar bi ñuy kon ah. ci bâtiment yu bees yi ah. mbaar bi ñu war a jànge maa koy tabax macha allah moom fa tam waaw moo war a mel maire Guédiawaye ah. moom itam tabax fa tabax boo xam ne bi mm-hmm. wax dëgg yàlla mbaar moo xam ne mii ay mbooloo ay mbooloo mën nañ caa jànge mu mucc ayib nga xam ne ay millions millions lañ ci def mm-hmm. lu nekk ñun dañ koy wax du pour politique waaye nag ku la ku la ku la liggéey ku la ku la defal da koy sant da nga koy gërëm ku la defal da koy gërëm li ñuy woote. Mm-hmm. ñun ñëpp ay jullit lañ. Mm-hmm. ki nekk ci état bi ki nekkul ci état bi ñëpp ay jullit lañ liggéeyu lislaam bi ñëpp ko bokk. ak mentalité nitu gouvernement ak nitu diine ak su nangam mentalité boobu ci boppam. Mm-hmm. xëy na ci jamono jamonoy colon yi la fi ñëwoon ak nangam ak nangam waaye dafa war a jógee. ñu xam ne ñun ñëpp ay jullit lañ. ci wàllu yëngutu nekk kenn ku nekk am na domaine boo nekk. Euh, domaine yu wuute lañ. Mm-hmm. waaye ñun ñëpp ñu xam ne lislaam bi ñoo ko bokk. liggéey bi ñoo ko bokk macha allah léegi du ñu fàtte mu kër El Hadj Alioune Souane. ci mm-hmm. liggéeyu association bi. Mm-hmm. biñ demee ba kokki ñàkk ndox lool. ci 1997. Euh, moom moo ñëw gas fa benn forage. boo xam ne bii daara ja ca la ñuy naan. waaye dëkk yu bari yu wër kokki ak ak benn parti ci waa kokki ci ndox moomu la ñuy naan muy forage boo xam ne bii forage yi gën a rëy ci Sénégal ci la ah, bokk te itam moom itam euh, ci yëngutu yi rek mbokk yi dem ba ci moom mm-hmm. wax ko daara ji wax ko liggéey bi ak na mel mm-hmm. mu xam ne loolu itam liggéey bi yàlla mu ñëw daal di bokk ci liggéey daal ci def waaw ah, léegi nag loolu rek mooy li nga xam ne moom la ñuy woote macha allah mooy daal ay nit a ngi ni toog di jàngale ngir yàlla mm-hmm. njabootuk jullit ñi. Mm-hmm. yu jóge fu nekk. Mm-hmm. ci biir Sénégal ak réew yu wër Sénégal. Mm-hmm. ndax Gambien yi rek léegi woon passé na léegi passé nañ deux cent quelques Gambiens. Ah, ah, ah. deux cent quelques Gambiens. ndax euh, yaakaar naa sept pour cent lañ ci ci limu daara di deux cent nangam léegi Guinée Bissau Sierra Guinée Bissau Mali. Euh, Mauritanie euh, Conakry Guinée Conakry. Euh, ñun ñëpp seen njaboot nekk fa. Mm-hmm. muy euh, jànguwaay boo xam ne bii wax dëgg yàlla ñu ngi fay jàngal doomu jullit ñi. Mm-hmm. yor leen fa di saytu seen wér-gu-yaram euh, di leen dëkkal mm-hmm. léegi jullit ñëpp bokk ko ñëpp war cee jàpp campagne bi ñu jëm loolu rek moo ko tax a jóg. di ci woo jullit ñëpp. lu waay am nga def ko fa ngir yàlla te am xel mu dal ne boo ko fa defee. def nga ko ci loxo yoo xam ne. boo fa dellusiwaatee di gëstu la nga defoon. Mm-hmm. da nga xam ne loxo yi nga joxoon. Mm-hmm. lañ leen joxoon yóbbu nañ ko ci la taxoon nga di ko joxe. macha allah te loolu lu am solo la ndax euh, Sénégal wax dëgg yàlla neexul ba neexul. Mm-hmm. waaye liñ fi joxe ci ngir yàlla moo ëpp. ci li ñuy def ci ngir yàlla. waaw ñu fexe nag ba model boobu ñu leeral ko mu gën a yaatu. macha allah euh, tasaaroo ci réew bi sëñ Amar Saxir loo ci laay tëjee. baaxoo woon na nag pour bañ nit ñi jàpp ne buñ ne kokki daaray kokkee tax ñuy wax bu daan wax def naan boo amee dara nga def ko fii ngir yàlla wala nga seet fu mel ni fii nga def ko fi ngir yàlla maanaam li mu bëgg a wax mooy ne eh, ñu toog di jàngale alxuraan di yar doomi jullit yi ngir yàlla dañoo dañoo mérito jur ñi jàpp leen dimbale leen. waaw mm-hmm. ah, parce que day bañ ñu jàpp ne li ñu woote mooy. kok kokki rek déedéet. waaw modèle la laaj ci alxuraan kuy ku toog di jàng alxuraan di yar doomi jullit ñi. Mm-hmm. dafa nekk warugar ci jullit ñi. Mm-hmm. ñu ñëw fekk la ci la ngay liggéey. jàppale la ci bu ko defee suñu borom boole pay gi ki toog di jàngale ak ki koy jàppale te loolu lépp day indi ci rek njaboot gi yaru yarub lislaam nañ ko war a yaroo eh, duñu tumuraanke duñu xiif duñ yëg ne dañu leen di gën leen teg ki ñàkk du yëg ne ñàkkam xaj na ko dara mhm. waaye ki am itam du yëg ne amam gi lu mu war a tiitroo la euh, defe naa loolu ay mbir la yoo xam ne buñ ceeree xale ba mu màgg war naa joxe ay résultats yu bëree bëri te résultats yi wax dëgg yàlla am na luñ ci gis ci résultats yu kokki euh, def ci domaine d' activité yu bëree bëri secteur yu bëree bëri macha macha allah euh, oustaz kon bu ñu tënkee rek dañu gis ne euh, bu ñu ñëwee ci li nga xam ne ni moom moo histoire ndaje mi mm. mooy kokki dafa jaar ci dafa sosu mm. lim bu takk nekk fa mm. ay ay ay ndongo nekk fa di dund am am parents d'élèves yoo xam ne ñoo sentir ne eh, yan bi diis na ci kaw sëñ bi ñu ne nañ jug di ko jàppale waaye man li ma ci jaaxal rek mooy ko xam ne nii yoo ko xam ne nii daara ji dafaru la daara ji eh, dundalu la daara jàngalu la muy suñuy maam suñuy suñuy suñuy suñuy suñuy papa hmm. amoon taxawaay boobu jàppale daara ji ànd naka mu ñun ñi nga xam ne nii nag ñun daara ñu ay produit daara ji lañ waaw dafa mel ni dafa mel ni kon léegi association bi daal yëg responsabilité ku xam ne ni yow say papa say maam yoo xam ne daara deful leen dara ñu jugoon jàpp yàq bàyyi seen temps bi yëpp di dajale ay ndimbal di yóbbu ci daara ja yow nag daara ji yow ngay pièce daara ji créé la par pièce nga nekk produit daara ji nga xam ne loo amus néew tey boo amee ab salaire war nga ko sante daara Koki parce que moo la def li nga def ba nga mën a am liggéey mën a am salaire soo nekk ab yor ay milliards war nga ko sant war nga ko sant daare kokki parce que moo la jàngal yar la euh, ba nga mën a liggéey mën a dajale xaalis boo dee médecin war nga sant daare kokki yow mi nga xam yow fa nga jugee parce que moo la jàngal ba def ci yow bopp bi ba ëllëg ci biir nga mën a nekk li nga doon kon ñooñ ñoon ñi nga xam ne ne ñoom la daara ji produire ñoom ñooy sentir yëg seen bopp ne njukkeel njukkeel war nañoo delloo daara euh, lu ñuy wax lu ñu koy waxee sa njuk njukkal njukkal daal di créer association boobu di dajale seen i ndimbal ak li ñu am tuuti ak képp ku ñu xam di ko fa yóbbu mm. kon daal suñu tënkee mooy loolu mooy histoire association bi di taxawee di fay bor waaw loolu xam nga noonu nga ko waxee rek la xam nga suñu borom moom mooy joxe waaw waaye nag kenn ku nekk euh, moom li mu la jox am na fu mu ko jaarale mm-hmm. waraf def naan ku soxor ne boo na yàlla danga na ci ah, topp diw ndax xëy na mm, hmm. li nga li nga li nga am suñu borom jox la ko am na fu mu ko jaare moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ku sant nit doo sant yàlla doo sant yàlla maanaam ki la nga xam ne nag yow oh, dëgg la lu baax bëri na hmm. du kokki rek ñoo am réussite ci àddina ah, ñi am réussite bëri nañ hmm. ci fu nekk lañ jóge waaye ñi nga xam ne nag ñoom yàlla baaxee na leen kokki la seen mbir jaare ñooñu mhm. tam wax dëgg yàlla war nañoo delloo njukkal daara ja mhm. euh, ndax yàlla fa la jaare la seen mbir wax dëgg yàlla ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax nag euh, mbokk yaa ngi taxaw nañu war a taxawee liggéey baa ngay dox seriñ bi ma ngay sant di ñaan bu baax a baax euh, ci taxaw bi nga xam ne bi njabootu daara ji ñu ngi koy taxaw daara ji mhm. xam nga courant bi rek bi mu jaaxalee daara ji lépp nga xam ne facture bi doon dem ci ay 2 millions 500 3 millions. Mhm. section bi nekk Dakar. Mhm. ñoo daal di jóg taxaw. ne weer wu nekk rek lu waaye mën na nga ko joxe euh, depuis at ak nangam a ngi nii wax ne kooku mhm. jooyatuñ facture. Euh, njaboot njabootu daara ji ñooy fay ñooy fay électricité bi. ndax itam koo xam ne ba ngay jàng. sëriñ bi lañ ko daan jox ci la daan jëndal lampe euh, pan jëndal lampe jëndal la pétrole. Ah, di la ko jox. Euh, di séddale pétrole bi ngay gis. waaw mm. ah, boo demee ba mën a fay dara ci ci ci ci ci ña fa nekk itam. Mm. te itam li ngay joxe xam nga fa mu jëm. xam nga itam kooku wax dëgg yàlla li ci gën a neex daal. Mm-hmm. gën cee dalal xel. Mm-hmm. mooy la fa waay def te xam kooku yow li nga def xam nga fa mu jëm. xam nga fa macha ah. allah macha allah euh, dañuy euh, docteur mhm. euh, oustaz wax na ci histoire euh, association bi mhm. ni mu juddoo ba créé multaxaa bi ndaje bi nga xam ne moom la ñuy dëdmal nii mhm. le 13 août 2017 moom la ñu dëdmal nii nga xam ne mu nekk 38e édition wax na ci histoire bi mu juddoog yooyu waaye dañu ñëw rek ci adaaf yi maanaa objectif yi man man dama naan objectif man na mën nañ ko tënk parce que ci benn point mooy mooy appuyer daara maanaam jàppale jàppale sëñ bi ci yen bi mm-hmm. xam nga gën ñu ko détaillé rek wax ñu ko ci naka la amee ak yooyu waaw loolu lu wér la euh, moo di ne fexe ba dimbale dimbale sëñ bi ci yen bu diis bu mu yen mooy sëñ Maxtaar Naar loo nga xam ne moo fa mm-hmm. nekk léegi euh, benn la mooy mm-hmm. fexe rek ba eh, sénégalais yi mm-hmm. jullit ñi mm-hmm. ku nekk fi nga nekk Sénégal wala pitim réew rek mm-hmm. nga yëg ne daal am na ci Sénégal ay barab yu xam ne dañoo méritoon ndimbal kokki ca la bokk bu boobaa nag la ngay am nga fexe ak lum tuuti tuuti bu ko xeeb boo yónnee Moussa Oyal numéro téléphone am 77 653 91 02 653 91 02 loo ko yónnee dina moom moo jiite mbooloo mi mhm. dina ko yóbbu ba daara Koki ndax bu ngeen gisee 3940 mhm. dundal leen jàngal leen faj leen mhm. dundal leen jàngal leen faj leen loolu lu métti la te doo fay ko dara wax nañ leen ne courant ba rek ñaari weeru nekk facture bi ñëw ñu ne entre deux million cinq cent trois millions mm-hmm. am lenn ci njabootu daara ñu jóg di ko fay mm-hmm. waaye bul fàttee ne dund baa nga fa ceeb baa nga fa diwlin baa nga fa euh, garab baa garab yi ñuy war a faje aussi dañ koy soxla mm-hmm. donc yooyu yëpp yooyu yëpp dañ koy soxla bu nga xam ne kenn ku nekk loo am commencé ci état nga xam ne état moom la daara ji di liggéeyal. Mhm. ndax li daara ji li muy liggéey état moom moom la war. état moo war a jàngal ay doomam yar leen. Mhm. kon daara ji day jël benn pàcc rek di dimbali état bi. comme mu ngi dimbali état bi nag. Mhm. état bi tamit ni ko Moussa Wayel waxee baax na mu ngi dimbali daara ji. waaye tamit ñuy ñaan yàlla ak chaque fois rek ñu gën di yokk te xam ne dimbali daara ji mooy contribuer au développement du Sénégal. kon daara ji moo xam état la. mu xam njiitu kilifay diine yi. Mm-hmm. ñoom ñëpp amul benn kilifa diine ci senegal boo mën a wax ne. Mm-hmm. amul ci lu bokk ci moom. Mm-hmm. te jàngul ko te jàngul ko amul. ba dafa ramassé famille yëpp. waaw xam nga daara ji daara kooku li tax euh, njuge ko war man dimbal dafay nekk place boo xam ne. li nga li ñuy wax affaire waaso affaire xeet. wala yooyu yooyu yëpp da ko teg fële. ku ñëw mu accueillir la jàngal la la. kon loolu moo tax. këru diine yi tamit dañu war a baax bàyyi xel. Mm-hmm. di kokki dimbale kokki. Mm-hmm. même syndicalistes yi. Mm-hmm. les syndicats ñoom ñëpp dañu war a fexe xam ne kokki benn barab bu yejjoo ndimbal la. yeneen personnes yi. moo xam enseignant nga. moo xam avocat nga. moo xam député nga. moo xam commerçant nga. moo xam euh, homme daffaire nga. moo xam médecin nga moo xam loo mën a doon. na nga xam ne jël astuut dimbale ko kokki wala yeneen daara yi. Mm-hmm. comme ni ko wayal waxee. loolu dafa war am. Mm-hmm. maanaam lu jaadu la boo ko defee. Mm-hmm. ko ñëpp defee rek. dafay régler benn problème social boo xam ne nii sax xëy na doo ko xamati. xam nga mu nekk nii si misaal. benn exemple. mooy problème mu manicité taalibe yi di yalwaan ñu naan wala Dakar foto la ñuy naan manicité yi bu yàggul rek. la euh, benn rapport génn. ñu ne ñoom kat li ñu waxoon dañoo génne taalibe ba léegi réussir nañu ko. xam nga la meilleure manière de réussir de régler cette question là. Uh-huh. mooy nga fexe ba daara yi jàngale. Uh-huh. nga dimbale leen. ji nga boo demee kooki. Uh-huh. wala jaamal. wala bokk jawe. wala ciloñ yii man dem naa fa. seen taalibe yi heure bi taalibe bi nekk Dakar di daan ñu ngi yelwaan ñoom ñu nga ci seen. toog di jàng kon boo leen dimbalee yaa ngay fixé xale yi. ñu téye ñu téye xale yi état bi danga bëgg wax ne. état bi pour mu euh, xeex euh, yalwaan ci mbedd bi. moo daa war a dimbali daara yi. dimbali daara ñu xale yi ci biir daara yi. ci ñu ko defee rek. waaw bu dinañ régler problème bu am am solo. moo di fexeen daal mhm. nañ dañ jéem a xam nañ daara yi nga xam ne ñu ngi liggéey. Mhm. ñu dimbali leen. leen ba gën a mën ba nga xam ne. malgré mi ngi koy def sax waaye mu gën a yokk waaw gën a yokk seen loxo. mais pas pas état seulement mhm. mais état ak ñëpp rek. waaw bonne volonté yi nga xam yow moo xam ak loo mën a jiite rek. ak loo mën am. nga dimbali daara yi nga xam ne daara yi ñoom ñu ngi seen Sénégal depuis pratiquement junney at. Mhm. ñu ngi ci ñu ngi allah junney at nag. Mhm. ñi fi nekk di tabax. Mhm. di liggéey di yar di jàngale. ñooñu di ñu mérité ku leen jukkal dimbal leen ak ci façon ni boo man macha allah ni ñu waxee ni ñu ni ñu waxee woon rek. daara lu tax a jug daara mooy mooy mooy defar nit tabax nit. créer ku nekk xam ne ne l'islam euh, maanaam euh, li ko tax a jug. mooy nit bi nga xam ne ni moom la yàlla subaa subhaanahu wa taala allah subhaanahu wa taala moom la wàccee ci kaw suuf pour mu wuutu ko fi nekk xalifaam ci kaw ard mu mu sàmm mu defar ko nit boobu ba rôle bi nga xam ne ni moom la ko yàlla sant mu mën koo def ci kaw suuf du nekk nit koo xam ne nii ay day génn ci moom waaye jàmm rek mooy génn ci moom day nekk nit koo xam ne day jariñ moroom moroomu doomu aadama day nekk nit ko xam nit ko xam ne nii day liggéey di ñaq di jariñu di dundee te du ko ci kenn rôle boobu nag moom la daara ju mel ni kokki di def ak kenn beneen daara bu mel ni moom di def ki def rôle boobu nag mu ngi jàppale état ki def rôle boobu nag mu ngi jàppale askan wi waaye kooku kooku noonu dafa yeyoo ndimbal parce que toyal na jamono ñoo xam ne nii yenn nombre yi ku ko yor da nga trop ci dundal leen wala dëkkal leen oustaz foofu laay ñëwee euh, foofu laay ñëwee ci yow rek di laaj question te euh, ñu ñu tàggat ñu tàggatuwaale ko Euh, nga nga waxal ñu rek euh, ku bëgg jàppale daara ji kokki ku bëgg ko xam ne nii am na am ak tuute bëgg jàppale daara ci ci yan fan lay jaar yan porte lay jaar ba mën a def loxoom ci daara ci waaw euh, daara ji ki bëgg a jàppale mën nga contacter daara ji directement waaye itam mun ngaa contacter ñi nga xam ne ñooy représenté daara ji partout ci Sénégal foo nekk rek am na ñu fa nekk. ñoo xam ne ci kanam tuuti da nga dégg ay communiqué. danañ yor ay lettre dëkk bu nekk am na ñu fa nekk ñoo xam ne ñu ngi yor ay lettre yoo xam ne ñoo fa nekkal daara ji marché yi am na ñu fa nekkal daara ji di dajale yooyu. Euh, ku wootee itam ci 77 653 91 02 77 653 91 02. wala 77 544 20 10 25. 22 25 pardon 77 600 544 22 25. 77 544 vingt 25. yooyu yëpp boo ci wootee incha allah danañ la wan yoon woo xam ne ca ngay jaar ba sa ndimbal àgg ca daara ja mm-hmm. euh, kon nag bés bu bu ni nga ko waxee noonu rek li docteur Junju am na solo lool maanaam euh, daara. ak jàng alxuraan ci Sénégal gii ci seen histoire lu bokk. nit mënu ko cee dindee. kon nag li am solo mooy ñu encadré ko. mel na nag état bii fi nekk yëg na ne loolu moom moo tax parce que bu état di tabax daara. wala di jël ay ay bâtiment di ko tabax ñu ne fu ñu ko jëlee ñu ne ci daara lañ koy tabax euh, lu bëri li ñuy jàmbat euh, li koy li koy saafara rek. mooy xool réalité yi ni mu mën nekk ñu ñu ñu ñu seet nuñ koy saafaraa noonu fexe ba xale yi nekk ci daara yi. Hmm. toog ci daara yi di jàng alxuraan. Hmm. waaw yi nga xam ne ñoom moom la docteur doon cité léegi seeni xale duñ taxawal ndax amuñ jot taxawal. Hmm. waaw koo xam ne boo xëyee boo ndekkee ba noppi da ngay jàng ba añ jot xëy na booy wuti añ ci diggante boobu nga koy wate ji. boo julee tisbaar da ngay jàng ba 6 heures. jàpp 7 kooku moom nekkul mënutut a sonal mënutut a sonal kenn ci taxawaay. Mm-hmm. Mm-hmm. ñaareel bi tam daara wax dëgg yàlla ku xool réew mi settantal ko da nga xam ni li ñuy wax euh, citoyen bu patriote. Mm-hmm. daara ñoo ko tabax. ñoo ko macha allah. waaw citoyen boo xam ne bi ku patriote la maanaam dafay gëm ne dafa war a liggéey. jëriñ boppam waaye dafa war a dafa gëm ne dafay jaamu yàlla ci jaami yàlla yi. Euh, dafay jaamu yàlla ci jaami yàlla yi nga xam ne kon liggéeyal nit ki servir nit ki ci boppam ci mm-hmm. jaamu yàlla ci la bokk mm-hmm. euh, loolu itam daara da ci da ci joué bu bëree bëri xëy na docteur dina ci ñëwaat mm-hmm. ak sunu temu ren bi yi demee noonu nuñ ci jublu waaye daara wax dëgg yàlla rôle ci Sénégal buñ ko settantelee xool produit daara yi euh, li ñuy liggéey wax dëgg yàlla xale yi nekk ci Europe nekk jeune dem Europe liggéey ba am xaalis ñëw takk fi soxna bàyyi ko fi di liggéey di indi njaboot gi di liggéey di indi. Mhm. wax dëgg yàlla kooku ku ñu yar rek moo ko mën a def loolu boo demee ba am foo foo foo xam ne fii sa bakkan man na faa am li mu bëgg. Ah, da daal daal dindal sa bakkan rek yam ca bañ ah, fàtte ci dem waaye nag. lu tax ah, xale yi lan lañ def ci ñoom foo ba fu ñu nekk rek. Hmm. di xalaat luñ am ak luñ ko yóbboo seen réew di xalaatuñ mu ko installé définitivement fa ñu nekk. xalaatuñu seen bi ñu yemale ko fa waaye toujours rek seen xel mi ngi ci ñi ñu bàyyi gannaaw def naa éducation boobu fekkoon tase woon na ci école publique fu nekk mu nekk. mu nekk foofu mooy. kon macha allah. Euh, dana dana kii Serigne Mbaye Thiam mi ngi doon junj keroog bi ñu demee Kokki. Mm-hmm. mu gis association sortant yi rôle bi ñu am ci dellusiwaat. Mm-hmm. mu a ah mais yéen ñun liñ bëggoon ci li ñu tuddee retour. Ah. Euh, au royaume euh, d'enfants léegi nga xam ne kenn ku nekk fa nga yaroo woon nga delluwaat jàpp ci mhm. pour école yi mën ne dox mhm. euh, ñun réussir guñ ko mais yéen yéen a ngi koy réussir waaw moo ne daara ji na mu yaree xale peut-être école bi da ko yarewul mhm. ki mu doon yar waaye daal école daal njëriñu nit ñi la ndax diine la te diine mooy àddina ak alaaxira. macha allah diine mooy àddina ak alaaxira. macha allah docteur euh, waaw euh, docteur yow tamit ñu jox la nga tëj rek. Mhm. te nga te nga nga euh, waxaale ñu rek ci programme mu jour bi. maanaam ndaje mi nga xam ne ñu ngi ko ma di le 13 août 2017 di di dimanche. nga waxaale ñu ci programme bi rek nu muy demee ak nu muy tëddee ak la mooy slogan bi titre bi. waaw ñaare li gën a bëri moo ne ndaje mi ca kokki mhm. dañuy commencé 9h. bu ñuy julli balaa ñu julli tusbaar deux heures ñu arrêté. di gën a bëri moom programme bi foofu foofu la yem nit ñi mën a nit ñi mën a ñibbi mën a gonti ñibbi mm-hmm. thème bi ñu jël ren moo ne mooy ne mooy dawrul madrasa al quraniya fi tanmiya fi tanmiya le rôle de l'école coranique au développement mm-hmm. développement de la société donc euh, loolu day baax mm-hmm. nit ñi xam école al quran daara yi lan lañ participer lan lañ contribuer ci yokkute yokkute penc bi yokkute askan wi macha allah yokkute nag. Mm-hmm. Eh, am na benn bis sama mu wax benn eh, benn waaye ne ma gis naa la ngay wax ci télé bi di défendre daara yi bec et ma ne ko c'est mm-hmm. parce que man dama nekk doomu daara. Mm-hmm. nekk produit daara. xam li daara yi liggéey. dama ne Sénégal. lépp lu baax loo fay gis. boo gëstoo. loxol daara yi génnu ci. loxol doomu daara yi génnu ci. macha allah ma ko wax publiquement te mën naa ko répété. Mm-hmm. Sénégal li fi baax biñ ko tabax xam nga wax naa sànq ne la daara yi ñu ngi ci Sénégal depuis presque junni at. Mm-hmm. école tubaab bii nga xam ne xëy na am na politique ñu ngi ko mm-hmm. politigal ñaari téeméer at la fi amaale. 1817. kon li fi nekk depuis junni at. nit ñi gis njëriñam gis mbaaxam. am attachement bu fort ci eco daara yi. parce que gis nañ li muy def. daara alxuraan wax na ko. ngay ngay génne. gis koo xam ne dafay def ci moom mm-hmm. inclusivement ay ay critères yoo xam ne mm-hmm. moo koy may wax na sànq patriotisme mm-hmm. nekk un vrai patriote bëgg sa réew waaye tamit faxe nga ne man dama war a euh, dimbale sama réew dimbale sama xeet dimbale sama diini dimbale samay mbokk jom jooju daara def ba boo ñëwee ci capital wala foo mën a dem doo sa liggéey liggéey boo xam ne sa dire ayewu wala ko. Mm-hmm. sa karaamal insaan yi ayewu la ko. ñaar xamee ne ayewu la rek. Mm-hmm. da nga liggéey liggéey boobule. donc daara yi li ñuy liggéey maanaam boole jàngale ak yar. Mm-hmm. xamal nit ki mooy xam mooy kan. dañ ko bind pour moom mu tekki waaye dindi ko bind ko pour mu torox. Mm-hmm. te bind la yow li ngay dun ci àdduna bi da ngay xam ne am na leneen lu lay xaar. da lay xaar nag mm-hmm. pour nga réussir ko fii nga ko war a mën liggéeyee. Mm-hmm. critères yooyu. yàlla def na ci daara ji nga koy fekk. macha allah moo tax. ñuy bis boog mbaa bis baa ñu koy thème baa ngoog. le 13 août ak kooki. thème bi moo di daaray alxuraan hmm. lan lay liggéey ci wàll yokk yokkuteg askan bi askan bi loolu nag hmm. bu incha allah dinañ def ay conférence ci ba hmm. ay waxtaan ay waxtaan ñu ngi ñu woo mboolo jullit yëpp ñu fekkee si ko te kenn ku nekk nga xam ne même ñaari dërëm xeebuñu ko boo ko indee kokki te boo ko indee kokki xamal ne indi nga ko place boo xam ne mérito na ko te dina yegg ci fi gën tax nga génne ko macha allah طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نعم illaa tazkiratan liman yaxsha a su borom buy wax ak buy wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko wax naan ko wàccewuñ ci yow alquran ngir nga texeeti ngir nga sonn nga kon ab taalibe kii jàng alquran waru nekk koo xam ne ni koy soli sagar la waru nekk koo xam ne ni koy dëkk yelwaan la ku ñuy sarax rek waaye ab taalibe ku jàng alquran dafa war a nekk koo xam ne nii kuy kuy siggi la ku ñuy ñee la ci ci ci melokaanam ci ci ci anamam ci ci ci ci nekkam kon euh, loolu daal ngeen bëgg lañ bëgg wane. Hmm. ci jour boobu. Hmm. ci ndaje Koki mi le 13 août. 2017. Hmm. woon nit ñëpp ñëw teewee ko di leen wax woo ci ndaje moomu ñu fas yéene jàngat alxuraan naka la tabaxee naka la participer. ci nit tabax ko ba mu mën a réussir euh, addinaam. mën a réussir addinaam ba keroog alaxiraam alaxiraam njëkk kon ñu ngi leen sant. ci tëj rek ci tëj ñu ngi ñu ngi sant oustaz Moussa Wayel oustaz Moussa Wel moom mi nga xam ne moo jiite association bi euh, ku nekk xam ne ne jamono ñu toll temps bi xat na trop ndax ndaje mi ñu ngi jublu si ak temps xat yëpp mu ñëw bàyyi léppam ñëw wuyu si ñu ñu ngi koy sant di ko di ko di ko gërëm di ko di ko jaajëfal euh, ak docteur euh, docteur Jim Dramé di ko sant di ko gërëm moom mi nga xam ne moo jiite commission commission commission de communication bi. communication moo ko jiitee ñëw tamit bàyyi liggéeyam yëpp ñu ngi koy sant di ko gërëm di gë gërëmaale rek commission yi nga xam ne ni ñoo nekk ci association bi yëpp mm-hmm. moo xam ñu yor wàll culture moo xam ñu wàll éducation ñu wàllu yor wàllu organisation mm-hmm. ak ñëpp ñi nga xam ne nii jàpp ñu ngi jàpp ci liggéey bi ci organ organiser ndaje mi bu mucc ay ba mu ba mu ba mu yem di di sant tamit di gërëm euh, sëñ Makhtar Naarlo mm-hmm. moom mi nga xam ne nii moo moo moo jiite liggéey bi yëpp moom la ko yàlla teg ci kawam te yàlla ko yàlla oyofal te yàlla ko yàlla oyofal ci kawam mm-hmm. uh, ak ak rakkam yi nga xam ne ñoo topp ci moom uh, Baye Fall loo mm-hmm. ak ñu nekk ci daara ñëpp yor liggéey bi yàlla na leen yàlla dëgëral ci seen uh, taxawaay te wéral leen ak kokki yëpp di gërëm mm-hmm. di gërëm waa kokki ñi nga xam ne ni ñoom ñoo dalal daara ci ñoom ñi nga xam ne ni noppalu bu guddeeg bëccëg ak euh, di jàppale sëñ bi ci liggéey bi di jàppale ndongo yi ci wàllu dundin ci wàllu nekkin ci ci wàllu yëpp ñu dëkkee daal di sant di gërëm daal bépp mbokkum jullit képp koo xam ne ni daal daare Koki euh, ñor na la daara Koki saf na la képp koo xam ne ni lu baax ñor na la daare Koki bu ñu waxee daara Koki modèle modèle la ci ci mbaax képp koo xam ne yaa ngi koy def sa loxo di ci jàppale di di ko di ko di ko di ko yittewoo mooy yaa ngi yittewoo am baax ak fekk foo ko mën a def rek taali kooku mi ngi lay sant di la di la di gërëm di sant ñëpp di gërëm di gërëm ñi nga xam ne ni tamit euh, ñi ñi ngi jàpp ci affaire communication bi ñu nekk ci gannaaw ñu nekk ci ci ñi ñuy gis ñu ñu dul gis mm-hmm. ñëpp ñu ngi leen sant di la gërëm di leen jox ndaje rek euh, le 13 août 2017 euh, ci kokki di leen xaar ñëpp di leen woo wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون